maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp euh, tey nag mbégte laa am lool di recevoir fii ci Yeumbeul Sud ci centre Sidi Hott euh, su may xarit sumay naataango sumay camarade du parti de l'APR euh, les responsables politiques no élus no députés nos conseillers économique may ci ràññee sunu député Moustapha Mbeng suma frère di ci ràññee itam suma grand frère le député Samba Demba Ndiaye les anciens maires ñoom Daouda Ndiaye ñu ngi fi conseil économique ñoom Pape ñu ngi fi ñoom Matar Diop ñu ngi fi euh, ñoom Matar Thioune vraiment des responsables mënuma lim ñëpp sinon damay jum ñu ñëw nag daje fii ndaxte ndaw ñi Cogère moom ñoom ñoo ñu invité tey ñoom ñoo organisé ñun responsables yi ñun sommes que des invité ñun fii dan dan nekk ay njaatige wante événement bi COJER national moo ko organisé ak COJER départemental bu Kër Massar. COJER national nag xam nañ fi ko jiite mooy Moussa Sow moo fi ñëw ànd ak délégation bu takku fekk fi nag waa COJERu département bi COJER département bi nag lëkkaloo booloo nekk benn bëgg a organiser ndogu débat boo xam ne dañ fiy ndaje waxtaan ci li nga xam ne mooy jëmal kanam sunu partie mooy jëmal kanam sunu coalition également ñu préparer échéance yi ñu jëm. booloo nekk benn loolu la nu président Macky Sall sant te lool la ñëpp di ci loolu la ñëpp di dox ndax loolu mun a sotti ndaxte mbooloo moom mooy nekk doole donc mbégte la tey ci sunu rencontre bi xam naa yenn détails yi samay naataangoo yi xam naa Moustapha Mbengue na si ñëwaat honorable député ak aussi le coordonnateur Moussa Sow mais vraiment c'est unique musul am lu mel nii je pense fii ci département de Kër Massar boole tous ces responsables donc ndaw ñi itam COJER dama leen di féliciter dañ leen di gërëm sant leen def nañ organisation bu takku euh, ñoom ñëpp ñu mànkoo ñëw ñu ñëpp ñu ànd préparer fi ñu jëm mais surtout préparer li nga xam ne mooy am amal yitte askan bi loolu moo gën a am solo nu ñuy def ba gën a lëkkaloo askan bi waxtaan ak ñoom programme yi fi président lalal lal ci département de Kër Massar programme spécial Euh, de de programme spécial de développement et d'aménagement de Kër Massar maak sama naataango Oumar Gueye ñu si liggéey nan ko paree fan yi di di euh, ñëw war wax nag ci li nga xam ne mooy jëmale kanam suñu département ci fànn bu ne nag ci inondation ci emploi ci infrastructure ci sécurité ci formation ci éducation bi gis ngeen démb jóge nañ jaxaay demoon foofu euh, lancer travaux CEM de jaxaay ay travaux ci lycée bi indi ay table banc ñun daal lu ñu yitteel mooy li nga xam ne mooy yitteel askan bi kon tey nag ci guddi gi dañ fi waxtaan tënk loo xam ne nag dañ ko mën a dawal ci département bi ndax ñëpp mën si gis seen bopp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñoom Maodo Malick ñëpp ñu fi nekk ñoom Matar xam nga suñu responsable yi nekk dans vraiment euh, tout toutes les communes euh, du département ñu ngi teew si fii ma leen di gërëm di leen sant ñoom ñëpp jë jërë ngeen jëf